عوزي بربيا والواحد الأحد منا لعينك فني سر من جهاد السلام عليكم بك طالبي نونغي في تي ci kër jàmbaar ju kenn dul fàtte di Cheikh Abdoulaye Lahad toog ak doomam ju baax ji di sëriñ si di mbakkeem Cheikh Abdou yàlla na fi yàgg mbakke te mu jël ndigal ca magam ju baax ja Cheikh Mouhamadul Muntaxa xaadim rasul yal na fi yàgg te wér ku xool appeel bii nag xool sëriñ si di kal ak rakam yi mbakke rafet na ba noppi yàlla nañ cee yegg rek ak jàmm waaye appel bi ko xool bis bi rafet na ba noppi yàlla nañ cee yegg rek ak jàmm. bisu jàmbaar jooju nag kenn du ko fàttee kooku mooy kan mooy Cheikh Abdoulaye Laat yokkum jumaa ji Cheikh Abdou Lahat bibliothèque bi Cheikh Abdou Lahat wataroute bi Cheikh Abdou Lahat daari kaami Cheikh Abdou Lahat boo génnee ci pencum Serigne Touba jàkkaarloog jëfi Cheikh Abdou Lahat ba nuy tukki yàlla na ko yàlla fayal ak Serigne Touba. kon bisam boobu ah le 27 la di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kori lu bari nag juddoo ci ren ndax màggalu Cheikh Abdou at mu jot am lu bees lu ca sosoo yàllaa ko fayee Serigne Cheikh Abdou Lahad ak Serigne Touba moo ko ko fayee ren fédération bi nga xam ni mooy fédération Cheikh Abdou Lahad na ci juddu na la 29 lañ koy màggal ca Pentiwigo ñëpp di ko waaj di see dem ren it incha bi bu neexee yàlla Angleterre xam ngeen nit ñu ngi koy waaj. ci Serigne Mountakha am Serigne Moustapha mii toog moom Cheikh Abdoulaye Laat ànd koog taalibe yi bu ñu jàppee bis bi daañu leen ko wax waaye ñu xam ni ca Italie Pentiugo le 29 la le 27 nag ñoo ngi jëm si fii waaye xam ngeen ni bala ñoo yeggit ci le 27 bi le 24 tubaarkalla am na ci conférence yu mag doomi donga yi doomi donga yi yi nga xam ni seen bàyyi sosoo ci daa daara Cheikh Abdoulaye doomi donga yi ñoom ñoom itam. ñoo waaj bisu Cheikh Abdou Lahad la 24 la 27 nag mooy màggaluk Cheikh Abdou Lahad la 27 nag ci yoonu murit kenn du ko fàtte bisu baa ngi noonu mooy bisu jàmbaar ji nga xam ni lislaam jëmu ko Sénégal yebu ko ku mu jur bàyyi na la xel waaye li baax di baax baax dem bàyyi ku baax moo gën boo fi bàyyee ku baax loo fi bàyyi du rapp du raaf du réer sëriñ Sidi yàlla na nga fi yàgg te wér te am ngërëmal sëñ Bamba sa ci ndigalul sëriñ Sidi mi xalifa Cheikh Abdou Lahad mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen sant te di leen balu àq ci weeru mag wii nu génne tey ñaan lépp lu ci waay def sunu boroom nangul ko ko gannaaw bu loolu wéyee bi sub sunu jàmbaar ja moo tax sëriñ bi tey jii woonu dajale na muy ni ko Ablaay waxe ñaar ko fan ak ñett di alxemes ci kori wi di le 27 juin yàlla nag dafa wax ni wa sakkir fa ina sikkira tan nii na jànkat yi ne inda sikkira saalihina tan silul baraka loolu moo tax sëriñ bi ne kon na daal di jublu kon ginnaaw lii la yàlla wax ñiy wax li nañ daal di jublu mbiru jàmbaar ji yàlla nee na fàttali dafay jëriñ jullit yi loolu la leen sëriñ siid yéen moo tax mu mu mu jëfandikoo noonu fàttaliku gaa yu baax yi day wàccee barke loola moo waral sëñ bi ne ko yi nañ daal di def lii sëñ Abdou Lahad nag ku koy fàttaliku ci rek nga koy fàttaliku ci jikkoom wala bëgg-bëggam yooyu nag yii rekk la alquran moo doonoon bëgg-bëggam moo doonoon jikkoom moom la daan doxe di ko waxee la ca tege hadis yonent bi sallallahu alayhi wa di ci tegewaat xasida yi sëriñ Touba yi leneen la cay tege mooy bëgg ga sëriñ Touba ak taalibe ga la ca des mooy bernde moo tax tey jii kon ñu ñëw fii di leen fàttali bis bi bëgg ngeen jàpp ko yéen yëpp te fas ko yéene te sàkku ci la ngeen bëgg ndax lu ca waay defkat kat yàllaa la koy fayal boppam ndax sëñ Abdou lu ko waaye defal sëñ tubaa lay fay te sëñ tubaa moomee ku muy fay yàlla la lay booleel te yàlla ak payam wax na ko ci alxuraan nee boo ma defalee benn ma fay la fukk man jaa abil xasanati fa lahu am amsaalihaa kon nag lu ci waay mën a def bu mu ko defa defa defa ba yéemu ko wala lenn lu mu ca mën a def na ko def te fas ca lam yéene la mu bëgg tafas fas yéene fasaale ci sëriñ bi ci boppam moom sëñ si siidi mi ak njabootu sëñ Abdou Lahad yàlla fekke loon lii li ay ati ati ati at ci barki Serigne Touba waaw sëñ Abdou nag jëmm la woon joo xam ni alxuraan jooju mu daan doxe ak daal ci gindi nit ñi ak di leen sa gàgganti loolee ba fi ñu toll ba fi ñu toll sunu borom koy doxal ndax koy wax ci événement wala ngay wax ci gàmm wala leneen lay wax bala ngaa wax ba daanee ne sëñ Abdou noona kon loolu mi ngi gindi nit ñi ba léegi kon kookee yàlla ak sëñ ko mën a fay yàlla na nu ko fayal ci barke sëriñ Touba sëriñ bi nag nee na bis bi mu ngi noonu wax nañ leen ko ah, bi mu ci juboo ak xalifa bi mu ngi koy yëgal xalifa yi waa kër sëriñ Touba yi ñi nga xam ne sëriñ Touba jur seen baay ak ñi mu jur seen ndey di ko yëgal xalifa yi nekk ci réew mi yu tijaan yi wala xaadir wala laayeen walla ñeeseen wala bu mu mën a doon yëpp ku ci dib jullit rek sëriñ baa ngi la koy yëgal gannaaw bu loolu wéet mu ngi ko yëgal njiital réew mi mu président de la république Macky Sall di koy yëgal secrétaire général am ak jëwriñ yi aju ci moom muy Boun Abdallah jonn ak ministre yi aju ci moom sëñ baa ngi koy yëgal ñëpp ci la gën a gàtt gouvernement bi yëpp yëgal na leen ko pouvoir exécutif bi ak pouvoir législatif bi ak pouvoir judiciaire bi kon lépp matale na sëriñ bi bàyyiwul kenn mi ngi ko yégal ñëpp yëgle bi nag jubluwu ci leen lu bëgg ñuy jariñu ah ku ca def wala nga yëngu ci lu néew néew da ko gisal sa bopp loolu moom jërul di wax kenn leen waaw loolu loolu leen sëriñ bi laabiré moo tax mu di mu koy woote leen ko yëgle di leen ko def yéen suñu kilifa ñu ngi leen di jotale ay kàddu yu néew ci ndigalu sëriñ bi toog di sëriñ Sidi Mbacke ayyadahu llahu wa nasarahu dañu waxoon nag naa naa waxtaan ñaan ñi nga xam ne ñooy jàngalekat alxuraan yi wàllu njàng mi ñu yokkaat ko bu baax waaye bala maa wax ci loolu dama leen di sant ndax daaw buñ ko waxee jaarale ko ci turu sunu wëlëre di sunu xarit sëriñ Mamor Mbàkke jàng nañ ci ay kaamil yoo xam ne kawe na jort waaye nag loolee ci boppam ñu ngi leen ciy sant bala ñoo wax ni di leen ñaanaat ren ko defewoon daaw ñu fexe ba defaat ko nu raw loola kon nag daanaka wax ji moom foofu lay yem ñu ngi ñaan jàngalekati alxuraan yëpp ñu jege ak ñu sari ñëpp ñu jàng ci ay kaamil ndax suñ boromam alxuraan rek la bëggoon alxuraan tam àggoon na ko foo xam ni kawe na njort ndax jaraloon na ko lu ne kon nag bis bi su ñëwee ñu jàng ko ci alxuraan rafet naa njort ne xolam dana sedd kon nag maa ngi ñaanaat jàngalekati alxuraan yëpp kenn ku ne loo mën ci ay kaamil rek nga def ko ci jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooleem taalibe yi ak ci turu sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou te jiital ci nuyoo bi ñaanal ko. mu yàgg fi li murid yëpp baaxoo ñaan ndax yan bii mu yanu ci liggéeyal ko sëriñ Touba di ko jaarale ci Cheikh Abdoul Ahad euh, neex na bépp jullit waaye neex na bépp taalibe waaye képp ku bokk njaboot njabootu Cheikh Abdoul Ahad yaa ngi koy sago kon dañuy ñaan yàlla euh, sag boobu sax ba faaw suñuy wax nag dañ koy joyal ci taalibe yi feeti bitim réew euh, ci soññi leen ak leeral leen bu ñu waxee ne taalibe yi féeti bitim réew ñi ci biir réew mi ñoo jiitu ñu door caa teg ñi ci bitim réew ni nu Afrique gënee jege Europe topp ci jege ci jegeenu Amérique door caa toppaat eh, màggal gi noonu lay noonu lay doxe sëriñ bi jox na ndigal fépp foo xam ne si ne ña ngi fa doon màggal màggal gi wala tàmbali wuñ ko woon ñu tàmbali ko muy fépp fu fi këruk sëriñ tubaa nekk wala daayira sëriñ tubaa nekk fa jox na la ndigal na ngeen ko doon defee ngeen yeesal loola ngeen yeesal loola di ko di ko ne defee am na nag xeeti réew yoo xam ne dañ leen ci gën a beral muy fi demee nekk Italie ndax dafa bokkoon ci barab yi xam ñoo njëkk a sos màggal gi bi màggal gi amee rek ñun dañ koo àndoon ak ñoom mm-hmm. loolee nag la sëñ bi gën a fedd di ko dëgëral ñuy wax ñoom ne diggante le 29 30 moo leen gën a jubu ñu jàpp jàpp waxtu bu ko caa màggal loolu nag yëmul ci ñoom mën nañu wax ne Europe Europe gi yëpp la ba ci Amérique ndax ñu bari téléphone nañ fi di sàkku di sàkku loolu ci ñoom ndax bis yooyu dafa tase ak bis yi nga xam ci la am jot te duñu liggéey te lépp dañoo yor liggéey jàmbur kon sëriñ bi nangul na leen loola fépp fi nekk te bitim réew diggante la 9 euh, ba la 30 muy wekken bi mujj ci ci ci weer wi nangul na la nga màggal fa euh, bis bi ni ngeen ko doon ni ngeen ko doon màggale màggal nag sëriñ Touba moo ko Euh, digle woon niñ koy defee niñ koy defee nag ñaar rek la benn bi mooy jàng euh, alxuraanul karim ak i xasida ba ko ñaareel mooy bernde bernde nag ku xamoon euh, Cheikh Abdoul Ahad wala nga di ko dégg doonte fekkanti wu leen xam nañ ne lim sos ci doxeenu bernde ku dem képp koy berndeeti da ngay roy ca nam doon nam doon berndee ndax euh, siiw na ci ñëpp ne dalaa wax ne koy berneel te raxasuma doyut berne ga des na na njëkk ci raxasuma doy sëkk nga xam si bu ca raxasoon loo xam dana mën seet wicc ba mën a xéwlu waaye nga jox ko raxas moo xam si ne doyut bu ca raxasoo euh, lox fekkoon loxoom taq day day day day day kaasu waaye du mën a set maanaam tàmbali nga koo teg loo xam si ne duutu mën a jëfandikoo sax ma jëfandikoo bu ñu waxee loolu nag am raxasoo nag bu doyee berne yi kon du mat a wax kon fu fi nekk nañ ko baaxoo def loolu du leen mat a wax mooy bernde yu day sëkk ak alxuraan yu mat sëkk ak xasida yu yu day sëkk xasida ak alxuraan nag dafay cërub euh, Cheikh Abdou Lahad ndax tey jii ku gis fee muy noppaloo ak la ko fa wër da nga xam ne lu jëf la ndax moom de euh, jiituwu fa daari kaamil ji daari kaamil jaa ko fa jiitu mu ñëw fekk ko fa te fu ñu ne bokkoon na ci ndigal yi sëriñ bi doon digle mooy daari kaamil ba fi sëriñ bi nekk fu fi euh, jumaa ji dafa saxaloon euh, daare kaamil ngir ñuy jàng kaamil yi suba ak guddi ak waxtu wu ne waxtu wu njëlee ba noppi danañ ko yeesal ba mu xamee loole la la la taxawal ci ndigalu sëriñ bi nu mu defalee daare kaamil yi moo tax bi mu delluwaatee war a noppalu ñu delluwaat ko foofu kon nag kooka li nga xam si mooy boromam fu ñu ko tuddee ñu tudd Cheikh xam Lahad fu ñu tuddee alxuraan ñëpp xam ne kenn la ci woon a ah, loola kon képp ku koy màggal loolu moo war a jiitu ca na koy na nga koy màggale ci ndigalu suñ kilifa gi toog ñu sëñ Sidi Mbacke xalifa Cheikh Abdoul Ahad gannaaw ba mu jotee ndigal ci kilifa yoon wi yëpp muy sëñ sëñ Mountakha Mbacke ñu ngi nuyu ñëpp nag di wax ni woote bi ñu ngi koy jooyal ci ñi nga xam ne suñu borom da leen a wax ni fa asbaxtum bi ni'mati ixwaana te ñooy suñu mbokki jullit yi di ko jooyee tamit ci suñu mbokki taalibe murit yi yi nga xam ne sëñ bi da daa wax ni yéen yéenay waa kër gi ngir taxawaay bu rafet rawatina nag sunu mbokki bopp yi nga xam ne ñun ñooy ñoom ñoom ñooy ñun te ñetti xeeti bokk yi ma lim yëpp it liñ bokk dañu ko mënta séddoo te sëñ Abdoulaye daf daa wax ne ay bokk ay nit ay nit bu ñu àndee lu ñu mënta seddoo dañuy rafetal àndin wa kon moo waral ñu fas yéene ànd ak ñoom bis bi ñoom ñoo ñëpp ñi ma lim ñu ànd ñoom bés bi ah, taxawu ko ah, di ñaan nag ñu egg ci ak jàmm ak salaam tey wax ne ñoom ñoo ñu nag ah, la weesu lépp rafet na te jot nañu lii ñëw mooy gën a rafet kon seen bisa ngoog ñi ngi ñaan nag sëñ bi ñaanal ñu fekk ñu teewe ko ak jàmm ak salaam te mbooleem luñ ci dagaan wala ñu jëf ko suñu booram boole ki li yéen gën a nangu asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyoo bi sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di ñaanal sëriñ Sidi Mbàkke moom sëñ Abdul Ahad mu yàgg fi loolu te wér ak mboolem njabootu sëñ Abdul Ahad yëpp di wax ci turu sëtti sëñ Abdul Ahad yëpp ngir waajal màggalu sëñ Abdul Ahad bi nga xam ne mooy doon lawen set set yi danañ am conférence buñ ci taxawal doon talaata ñaar fukki fan ak juróom lawen cinq ñu ngi ciy woo mbooleem daayira yëpp mbooleem njabootu sëñ Tuubaa gépp mbooleem seex si mbooleem taalib yëpp ñu ngi leen ciy woo ren ñu tuddee ko sëñ ab Samad Mbàkke moom Seexul Xadiim ñu ngi ciy woo ñëpp gannaaw loolu itam daayira turandooy Seex Abdul Ahad yi sëñ Abdul Ahad Jóob moom sëñ Ceerno Jóob jiite ko ñu ngi leen xamal ne fédération boobu taxaw na ku ci bëgg am ak leeral nga jokkoo ci ak sëñ Abdul Ahad Jóob moom sëñ Ceerno Jóob gannaaw loolu itam bisu bi nga xam mooy bisu màggal gi buñ demee ba cérémonie ba jeex daayira yi nga xam ne ñooy dongaay tërbiye Cheikh Abdoul Ahad yi danañu continuer dundal guddi gi ci alquran ak xasida <coughs> ba guddi gi jeex ñu ngi ciy woo ñëpp doomi donga yi itam altine la wenkaat danañ ci def am ngontum xasida lépp ngir waajale ko bisub Cheikh Abdoul Ahad bi ndax léppam day alquran ak xasida mm-hmm. ñi ngi ñaan képp ku ci teew la sëriñ bi waxoon ne damaa am ci moom yaakaar képp ku ci teew yàlla bu sa yaakaar tas ci barkeb sëriñ ci bis bi nag bu agsee bis boo xam ne moom lañ moom mañ la tuddee lam la njëkk warul mooy boo dee dem àjjana kooku kenn mënu koo fay. nee naa doon woo yem ci da koo doon ku dugg ci kër gii gis ni ko def kees gu ci nekk ña ko xamoon buñ fa duggaatee keer kees ga nekk résidence confort yana ca xasrul malaki yee ne ca mujj woo ko dey mu mel ne neen le 27 lay tombeel ci weer wii di weeru tubaab ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kori wi di bisu suñu jàmbaar ji kenn dul fàttee Cheikh Abdoulaye Lahat dégg ngeen le 29 penti wi ñu ngi koy waajal Angleterre ña ngi koy waajal waaye ku na xam ne nag itali seen bis bi yàgg na ci waaye ren nag ñu màggal fédération bi ñëpp daanu ci ñëw waaye xam ngeen ni ah bisu Cheikh Abdou Lahad nag maire Sénégal yëpp Cheikh Abdou Lahad Ka woo na leen ndax mooy maire Touba moom lañu ñu moom it Cheikh Abdoulaye Laat bis baa ngoog la 27 la la 27 taarix la ci yoonu murit di bisu Cheikh Abdoulaye Laat kenn du ko fàtte ku ñëw Cheikh Abdou Lahad fat la ku mu fanaan biti na ñëpp ñëw Touba.